rabbun ab buur taqaddasa boobu sell na min jinsin ci jinsu ci aw xeet wa anwaahin ak i waasu wala ay façon ina sëñ bi yàllaa ko may mu fekkoon diine yonante bi muy leen lu raaf mu daldi koy yeesalaat dekkal ko ba ku ci bëgg aw daldi xam foo aw mu ñaan yonante bi nag yàlla dolli ko teraanga te moom sëriñ bi ci boppam mu dolli ko ngërëm yàlla nag mooy buur gu sell bi nga xamee ne mënuñu ne ci xeet sàngam la bokk wala ci waasu sàngam la bokk ay buur gu sell boo xam ne rek lu bokkut ak moom mbindeef la mu mu sàkk rek muy ab jaamu waaye amul xeet wuñ koy boole huwa moom alxadim mooy liggéeykatu yonante ibnu xibbillaahi koy doomi soppig yàlla ba ahmad turam moo di ahmad dul majdi kay borom tedd nga la al muhazzami lépp bushra kulli mitwaayin kay mbégum képp ku di ab toppaakoon nee na mooy la yëkkati yonante bi bokk ci sëti Habibullah ñu koy tudde Ahmadou Bamba yàlla may ko tedd nga ju réy réy te képp ku nangoo topp yàlla rek da bëgg ci moom sëriñ bi sëñ bi su mbégte lay doon ataa dikk na yarxaa di sàmm li arwaaxi naa ñeel sunu ruu wa yaxfaduha tam leen di wattu mina shaqaawati ci ak texee di xad af diihi baraana ma jotoo ko min raaxin muy aji sàmm ji moroom leen yàlla ko indi mu nuy sàmmal sunu ruu ba ruu mucc ci texee di kon nag mën nu koo fay xanaa jote ko sunu lépp rek lu ko nar a gàllankoor na ko te ñëw ci nun salfu laaj ko wala taxsha te bul ragal min jëxlin genn réer wa min xusurin ak genn jafe fa huwa moom aljawaadu mooy tabba alkarimu bay aji tedd alxaafidu ba di aji wattu alwaax yi kay aji wattu ba tey nee na xamul laaj ko ko mu xamal la ko loo amut ñaan ko ko mu may la ko ndax yàllaa ko defal lépp lu ñuy sàkku rek bu dee mbirum zahir ak bu dee mbirum baatin yépp nga fa arbaahu yàlla na ko dollee gërëm loo rabbi sama boroom bi ridwaanin ci ngërëm wa ammarahu te mu dundal ko fii naa ci suñu biir tawilan dund gu yàgg bilaa bu usin jul ak wànc wa iraaxin akuk tiital bi xurmatil Mustafa ci ormay ka ñu tànn خير الخلائق من جنج من ديفي من كنغا خمني دحا واتنا إلى الله جمتي الله أعلى كوال ميت كنا ذي باح كب كبرا مبجيبه والآل أبنين وصحب أك صحابي ما فاس لفيت تخير نتيه أجي طبجة بهم جسين درجة وما أجاب أك لفيت نيونه جسين درجة إلهي سمدور daawata daayi wooteeg aju woote ja dafa tëje xasida gi ñaan yàlla mu dolli ngërëm sëriñ bi guddal fanam lool lool te daray tiis mbaa tiitaange bañ caarax yàlla ko yàlla defal corma yonante bi nga xam ne da daan woote jëme ci yàlla te ku ko wuyu yàlla yëkkati laa yëkkati ba nga nekk ca kaw li kaw na ko yàlla defal loolu moom sëriñ bi ci orma yonante bi ak orma yi waa kër yonante bi yal yàlla saxal teraanga ci yonante bee ki gaayam saxal ngërëm li ci sëriñ bi li fekk nga xam ne ku nangoo topp yàlla mi ngi ñaane ci daraje yi gaa yu baax yooyu mu yonante be ki gayam yàlla diko may texe diko may la muy ñaan li fay looloo ngi am yàlla yàlla saxal salatu salamu ci yonante be ki gayam saxal ngërëm ci sëriñ bi walahu ñaan na cheikh almashari aydan ayaa moomilan yow aji jefno al fikra ya fii maddihi ustaadina ci tagg suñu sëriñ bi wayub ji tamuy feeñal lanaa ñenn sihran wax ju mel ni njabar bi alvazihi ca baatam ya ak durar yi mel ni ay ajatta rafetal nga waxad ahsanta te rafetal nga laakin waaye madihuhu aw taggam taqaasara gàtt na an hu walis ko a sajuhu wa nazmu ak way wa nafru ak wasar yow mi nga xam ne yaay jëmale sa xalaat ji tagg sëriñ bi ba sax di wax loo xam ne day yéene lool mel ne dafay njabar ñi am xam-xam ci wax bu rafet yow de def nga lu amul moroom waaye nag sëñ bi ci boppam tagg ko tagg wa yell ca moom moom la kenn mënut nga xam ne kuy sàcc xoo kay waya ka wesar loo guddal guddal ak loo gàttal gàttal ñoo yemoo dong mën laa fexe fexe ba tagg sëriñ bi tagg ba nga xam ne mooy yàlla ca moom dëgg-dëgg ak sajj moom day nekk wax yoo xam ne kenn peesewu ko waaye day bokk ay daaneel nga xam ne yasar la waaye dañ koy sàkkal ay daanukaay yu bokk mel ni way ni mi amee ay daanukaay yu bokk waaye way dañ koy peese te moom kenn du ko peese falaw ann arbabal balaaxati donte naka waroom balaaxa ga maanaam ña mën wax lool lool kulluhum képp ci ñoom akaabiruhum seeni mag xaddu saaxaboo àndoonte nañoo ba sixari boroom ndawe ga wa asnaw te ñu tagg alayhi ci moom bil xaji ci aji yéemu wa atnaboo te ñu xaabaabal wa jaa'oo te ñu dikke bima ci loo xam ne raaqa yéemuloona المصانح النطية والبصرة أك جسبة وراه تنجونت لإتيان الغرائب جردك ويتمرانك إذ غدو دنخي وما تركو تبايهن شهرا ونوي يزين ويدا رفتل ولا فقرا بكاجين أي سجه وتفننوا تنخيطل خيطل في كل أنواع البديه تنبولم xeeti badi jawaab ji mooy lama balaxoo koy bi ñu jot nisfal madihi genn wàllu tagg wa yàlla ci sëriñ bi walal xushura du caagéenu sax asaka ja dafa def nag walal xushara ngay maas walal xushura booy jàng benn benn walal xushur booy daaneel way wi fa lay dafa sori waaye jawaabam mooy lama balaxoo jooju dane ñi nga xam ne ñoo mën a wax dañ leen di yéem ñoom ñëpp ñoo cay mag ay ak ñi ciy gone buñu àndoon maase ci tëgg sëriñ bi kenn ku nekk waxa wax wax ba xaabaabal indi indi lu yéemoo yéemoo yéemu ci wala weesar xeeti badi ni mu façon ñu indi ca indi ay xeet yi buute wuute wuute ko it lañ wax la muy bari bari du mat genn wàllu la sëriñ bi yàllool mën nga ne sax du mat asaka ja fa ak rim kawtéefu tedd nga bisi ci moom min xaarifin ci aji xam lam yëkkun kook mësta nekk la di ko ñeel iltifaatun genn geestu ilaa xayril ni jëm ci kudul yàlla mi aji seere lépp dil xabari kay borom dogal ba dina maa ngi yéem ku baax kii nga xam ne yàlla rek la masa xam yàlla rek la mas di geestu mësta geestu ku may yàlla ومن ساهد أكشي أجدد في كل فان تجيب أججيخ وراغب تأجسك أن خير ونس نطب الليالة مخيمين في ذي الحرس تبرم أرس والجن تبرم جني والبشر تبرم دون عدم من ديه إن يعني ما نجيهم كتير دكي مخمني نكجيك دامستيون غناوي نطب لبوكتو يالله xañ moom yàlla kese sib nag te seexlu lépp lu bokkutoo yàlla wa min aabidin ak ci aji jaamu la ñu buxi jot mësta desal xuruusan ay cër ay wàll ne naf si ñeel bakkan ba wal hawa ak bànneex ba ne maa ngi yéem tedd nga jaamukatu yàlla boo xam ne mësta am wàllu bakkan maanaam bakkan mësta am ci moom wàll bànneex mësta am ci moom wàll léppam yàllaa ko mas di moom wamin xurtubin ak ci ab xurtubu xaafimin buy aji màgg wamin wésarin ci ab wóorukaay maa ngi yéem xam ne ku màgg màgg la ku mat wóorukaay la wamin maajidin ak ci aji tedd nadd bin kuy aji baax jawaadin ku di aw naaru góor dafa am beneen jawaadin bu nekk ci kanam te booba dend ak sax yiin ñu bëgg firi booba nag ab tab te firi aw naaru góor xatam tamin ku di géej mbambalaan jawaadin ku di ab tab sax yiin kuy aji tabe di nawaalin ku di boroomuk may xadin tasargot tasaaroona ne mi ngi yéem sëriñ bi ku baaxe ne moom ay mayam daj ñëpp mel ne géej fi ne rek mayam àgg na fa jën yi leen koy aji rafet zara koo xam ne xeebloo na bil bëgg di ca weer wa waxur rek wëcc yi pelleg xar kanamam ba wala leerug xar kanamam ba mahi bin ku di ko yegg sujaahin koy aji jàmbaare koo xam ne kum lay sin gépp gaynde boira tiitaleef na ko bii ci moom yàlla ko may niirul jamaal leeru taar kanamam leer leeraay boo xam ne day xeet leeraayu weer ni ko ñëpp yegg di jàmbaar joo xam ne gaynde sax ñëwewu ko nasihin koy aji laa biir fasihin koy aji rafet làmmeñ mooy ku mën a wax lool la takallama ndel wax na walla yendu maanaam sax saxbaanu ku ñu wax sax saxbaan waayil baaxila di kem baaxil baaxi sëriñ di boroomu gàtt maanaam di boroomu tële wax fii badaa'ihi ci ay fentam ne sëñ bi yàllaa ko muy fasaaxa rafet wax ba nga xamee ne ka ñu wax saxbaan waayil dañ ko siiwee woon ak mën a wax lool baaxil nag moom ñu siiwee ko ak tële wax lool mu ne sëñ bi nag ak mën a waxam àgg na ci su waxee ku mel ni saxbaan ci mën a wax day mel ne moo gën a turee wax sax baaxil ndax rek buñ geesoo yi sëriñ bi ñu ne ko waxam day mel ne rek moo fi dàqoon wax waaye léegi moom kooka moo fi gën a turee wax waaw maanaam ka dàq wax loolu mel ni saxbaan day mel ni daa soppi ku baaxil ci turee wax ci nag mooy jéem a tollooli waxam ak waxi sëriñ bi. isa staxara ndéem damu na alxawmu nit ña alkiraamu ñu day tedd fa saabiqun kon aji raw wa in barasoo ndéem génn nañu lil maj di jëm ci tedd nga fal kullu képp ci ñoom muxtaqarun ku ñu xeet la nit ñu baax ñi bu ñu wax seeni ndam buñ ko xasee tudd bu duñu tuddati keneen ndax fekk na mu raw ñëpp dañ dee wane tedd akuk màgg itam kuñ ko dendaloon rek nga daal di xeebu maanaam fa ko yàlla teg dafa rëy ba nga xamee ne ku dend ak moom daal di xeebu ak luy rëy rëy jawaabun ab tabla yaraa boobu day gis badral jiyaa di joxe naaru góor yi ganimatan mu di ak màng ida ma raahu ndéem gis na ko alxëyu keneen jëxlan mu di ak réer bi goog nekk na ci moom xasarul ak perte maanaam joxe lu rëy day tuuti fi moom lool lu dara rëy rëy rëy bu ko dee joxe day jàpp ne moom yàllaa joxe rek moom daa jot li day mel ne la ñuy joxe na mu cay sante mooy ku bëgg alal lool nga ñëw ko jox lu rëy noonu na muy sante moom suñ bi noonu lay sante ci la muy joxe nga xam ne boo ko bu dee joxe moom ci boppam da ciy bëgg bu lañ koy jox am na ñoo xam ne nee na mu dañu jàpp ne joxe ak ñàkk xam la te boo joxe yaa ngi ñàkk sa yëf waaye suñ bi moom bu dee joxe la mu joxe lu mu réy réy te jàpp ne yàlla jaarale ci moom rek muy joxe te da ko ci faw tuyaaba kon lépp mbaaxu yàlla du du gis dara ci boppam xolam da ciy sedd rek mu delloo sant yàlla fa yum naahu ndey jooram ba yum nun barke la duunahu boobu nekk na ci ak yéesam kullu saaxibin jëpp aji fuur wa yusraahu te càmmoñam ba yusrun am koom la duunahu mu nekk na di ko yées waakiful matari aji dotti taw ba enu sëñ bi loxob ndey jooram barke la feese boo xam ne mu ëpple géej lu muy sotti loxob càmmoñam nag ba tey lam ci joxe ci koom day bare bare ba nga xamé né mo raw ak taw buy la xad kana nekkon na dinullah dinu yalla ya fi tay zulmatin ci taxañuk lëndëm falamma ataahu ba nga xamé dikal nako na ko bi ba alerna kaman tashar naka mutasaro bi sey di ñew ñëwagu dafa mel ne diine dafa lëndëmoon ñu lam ko te mënu koo gis bu sëñ bi ñëwee nag moo ko tàllal leeral ko ba nga xamee ne diini daa ko leer nañ tàlli lool ku ci bëgg aw rek daal di xam fa ngay aw wa ahyaa te dundal na wala dekkal na moom sëriñ bi wa ahyaa te mu lottal kulla maytin képp ku deexoon mu dellu ci wa ahyaa ci njëkk ji wa shakirin ak jep aji sant mu delu ci wa aya ci ñaarel ji min muslimina ci julit ñi mordiyan bir muy aji gërëmloo kulla man kep ko xamne shakara sant na ñu sëñ bi biñ dëkkee kum fekkon nga dee ngir rir ak ñak xam sa borom do xamne kula dekkal sa borom wa ahya bu njëkk bi di halonku ci la kulla maytin delu wa shaakirin na moom dellu ci wa aaya ci xëyin gi maanaam sëñ bi kenn ku ne defal na la loo xam ne lott nga ci sant ko ci sant nga ci yàlla jullit bu ne ñu la sëñ bi defal bu bàyyi ko ci sa boroom jaare ci moom rëy na rëy goo xam ne loo sant sant sant rek xam ne sant go képp koo xam ne ab sant kat la li ko sëñ bi defal xam ne lu yàgg yàgg mënta fexe waxe ba sant lu tolloog li ko bi defal fa abdu xaax wal na ko desal rabbi sama borom rahmatan mu yërmande li ay baaji si ñeel jaamam ñi wa arbaahu te mu gërëmloo ko fi daar yi ci yaari kër yi irba aman gërëmloo ka nga xam ne xabara attan na bi hurmati xayril xalqi ci ormay ngën ji mindeef miftaaxi joodihi kay ceebi tabam nga alayhi yàlla doon lay nekk ci moom salaamallaahi teralu yàlla ak musalam ndax bu ñu nee asalaamaan tasmiyeeku dañoo jublu asalaatu ak salaam moo lii yàlla may aji kaweelam bil bushri ca mbég ya maxal aali ànd wal asxaabi ak saxaaba ya maa kulli muqtadin ànd ak jépp aji roy mada dëxëri sax na al wujudu am nga li dil qadari ne boroom dogal ba muy yàlla dafay jeexal xasida gi ñaan yàlla mu bàyyi fi sëriñ bi mu yërmande yi jaam yi te sëriñ bi yàlla may ko ngërëm lam gën a taamu fii ci àdduna ko fii ci alaxira ci may yonante bi yonante bi yal ko yàlla dooli salaatu salaamu moog ay mbokkam ak sahabaam ak képp koo xam ne yaa ngi jéem a roy ci ñoom li fekk nga xam ne yàllaa ngi fi nekk te lu fi jóg mukk li fekk looloo am mooy li fekk yàlla ngi fi nekk rek tëjuwu fi yàlla yàlla saxal salaatu salaamu ci yonante bi ak i gaayam walahu aydan xadiisuka sa waxtaan lii ñeel ma kaasum kem ab kaas la minal xamri ci sàngara muttalibun te aji sigre loola wa dikruka te suk tudd shuhudun kem xëbbulem la mu tayyibun wudi wuñ teeyal fi lisani ci sama làmmiñ day wax señ bi ne ko say wax ni wax ci man ba damay yëngal di ma màndal ni nga xam ne la sàngara di mandale ñay naan sàngara bu lay tudd wala bu ma lay tudd tudd gi day neex ci sama làmmiñ lool ba mel ne xëbbaleem woo xam ne moom wa wajhuka te sa kanam badrun weer la lii ñeel ma isa majj talaytuhoo ndeem niir naa ko tabarrada daal di sedd ak baa ji sama wàlli res allët yi nga xam ne tatalahabu ñu tàkk ne sëriñ bi sa kanam dafa mel na ci man weer woo xam ne su ma ko nee jàkk rek su ma nee sa kanam gi jàkk rek lepp lu tàngoon ci sama xol de sedd guy fa abduxaahu yàlla na kanam googu rabbi sama boroom rahmatun mu yërmaande li ibaadihi ñeel jaamam ñi yadiu dana leere bi ci moom sharqul biladi penku réew yi wa maxribun ak soowu na fi yàlla bàyyi sa kanam gii ndax yërmaande la ci jaam yàlla yi dagam daa mel ne weer nag kon ko fi yàlla bàyyi moom sa kanam gi muy leeral fépp fépp fépp penkook soow ayaa di yadday ka xéewali sa yaari loxo ku layu yomin ci bépp bëccëg wala lit ak bépp guddi tu dana ñu yeesal li ñeel ma xis ban naataange idoon naa su ndéem nit ñi aji daboo bekkoor nañu maanaam tàbbi nañ ci bekkoor mu ne ko bu nit ñi nekkee ci bekkoor man du ma yëg ne bekkoor am na maanaam daal xéwal yi bàyyi ko si yaari loxo jëm si ci man guddeeg bëccëg bis bu ne ñu may wan naataange loo xam ne bu nit ñi tolloo ci bekkoor du ma yëg ne bekkoor am na wa maa sirta dañoo këf fën di am xunti maanaam di am wóorukaay lii ñeel ma man yi xam buy aji të wa maa qilan te ab làqutukaay aloobu bëgg naa wóoru bi ci moom fii shiddatin ci ab tartar xiina arhabu ci waxtu wa naa ragal mu ne ko yaay suma wóorukaay bi nga xamee ne bu ma ci xasee làqu rek tënaa suma ma tiitee mbaama jaaxle dal di làqu ci yow rek dal di xam ne mucc naa ba noppi wa maa sirte dañoo taafoo di jéggale xan xan wi mi yi wëlis ajure sama toñange gi wa tasturuni te nga may sutural wal halu te mbir ma modi and ya nak man aaye bu ma gëna sik ne ko wor na ma ne da nga may fo tol di ma rek dima sutural ndi xamna ne man ma gëna sik ñëpp ñëpp ma gëna asaru ñëpp jazaaka yalla ilahi sama bur al barru bi aji khayra jazaahi ngën ji payam nga wa a'taaka te yalla na la jox fi daari ni ci yaari kër ya ma lépp loo xam ne kunta nekk nga tàpp lu bu di ko sàkku maa ngi lay ñaanal yàlla fay la ngën ji pay te lépp loo bëgg ci àdduna ak alaxira mu defal la ko xal lis nii yàlla ma xettali bi joo di ko ci sag tab wa xëpp te yàlla nga may lii ñeel ma mun yëtt sama mébét wa illaa bu fekkee defoo ayaa cheikh yi yow sama sëriñ ilaa ayna adhabu ana fan lay jëm sëriñ bi xeet li ma ci sang mbaax ak sa may ma li ma wut boo ko defut fu may jëm xërët fu daw naa ileek jëm ci yow al yow ma tey ji min qubhi fi'lati ci bonuk sama jëf waxad axrajat nii te génne na ma moom jëf ja xaayifan mbir mooy aji ragal ak raq bu dinaa séentu la may dal dana ko sëñ bi tey ji dama fëx jëm si ci yow ndax dama xam ci saa bopp jëf ju bon joo xam ne moom laa def ba xajootuma saa bopp ma daw nag jëm si ci yow maa ngi doon séentu nag li may dal ci musiba bul sang baax sa ngëneel moom maa ngi séentu la may dal si sama bakkan bi fi dan ak njot la la ka ñeel la min humaamin nga di ab sang mu majjadin bu di buñ teddal naxoo boobu ñeel na ko xabrun daraja wa mansibun ak daraja fawqa haadal jiili ci kaw gile maas sëñ bi sama népp def naa ko muy sa njot lu nar a jëm si ci yow na jëm si ci man bu dee lu aay ngay sang boo xam ne yàllaa teral te maas gi nga nekk amoo ci moroom ñëpp ñaa leen tiim siraajun ab làmp nga munirun bu di aji leeral moo dixun bu di aji leeral kulla mushkilin jëpp aji lënt yaquulu kook day wax fayuru saate dee fi fàtte yaarubu yaarub xiina bu ci waxtu wa muy arabal da nga mel ni làmp boo xam ni yaay leeral yoonu yàlla wi lu lënt it yaa nu koy leeral ba nu xam ko yàlla la may nag nga rafet arab ba nga xamé né bo dé wax dañuy ya yaarub momé nga xamné ci arab yi askanu jëm ci moom lami arab wu sell wa yaarub daan wax ak ñu soqi ko ci mom dal bo dé wax arab té tax ñu yi ya yaarub bok ñu soqi ko ci mom faqihun aji dégg fiqla adibun ta aji xam la joo ma bu taxa sakkuut darka fi aw yi jot am lefam ku maytun ka ñuy wax ku mayt wala jaaraahu te rawante ak moom fil fiqhi ci fiq ashhabu ashhab ku maytu ku siiw la ci adab ashhab ku siiw la ci fiqhu malik mu ne nag sëñ bi bu dee tudd boroom xam-xam bu rafeti taalif buñ ko xasee tudd kenn du fa tudd ku mayt ba tey buñ dee wax ku dégg fiq buñ tuddee sëñ bi kenn du fa tudd ashhad ya joodu dana tabe fa yum sii te muy fàtteloo kulla tallin bépp mësëy wa waabilin ak wépp waame li kilta ya yi ñel na képp ci yaari loxoom baxru baxru joodin géeju tab yu xalla bu def na ko walbati dafa tabee tabe ba nga xam ne te tax nga fàtte waame waame wuy sotti la sotti ngay bari bari tabik sëñ bi ko ëpp ba da fàtte sotti waame yaar loxoom yépp dañu mel ni géej di sotti rek nag tulaax yi danga nga taseeg la daa yum naahu fa loxob ndeyjooram ba yum noon barke mu ab badan bu di bu ñu dappetal wa yusran akum koom la nga yusra fa càmmoñ ba kamaante naka nga xamee ne yow tarxamu da nga xemmem waaye na nga rek boo ñëwee ci moom bëgg barke mbaam koom loxob ndeyjooram dafa fees ak barke loxob càmmooñam fees ak am koom yaar yi nag boo leen bëggee boo ñëwee ci moom na nga leen bëggee rek nga leen di amee laxoo ñeel na ko raaxatun téng loo xam ne fii dim ni xaa nekk na ci biiram kulu raaxatin bépp noof laay wa kafun ak tengu yàkku foo day fekk ab bay ma ak gotti mooy tooñ mbaa toroxte xanaa walis nu way ubbi si bu te mu koy dàq sëñ bi tengam lii ku amul noflaay tengam lii moo la ko may maanaam bari na ko amul noflaay te loxob sëriñ bi moo la ba boo ko yëgee ak boo ko yëgut tengam lii baraana ku mucc ci toroxte mucc ci tiis te loxoom bii moo la ko fegal ba nga mucc ca wa waazun ñeel na ko it ak waare baliixun guy aji jot mooy gu dem dayo lil waraa ñeel mbindee fi wa nasihatun akuk laabiire wa xilmun akuk lawet wa ilmun akuk xam-xam lam yu nil fu bopp mayewu ko at taka subu fàggu yene sëñ bi yàlla ko may muy waar mbindee fi tegtal yàlla di leen laabire ci wàllu yàlla yàlla defal ko ak lawet goo xam ne ku lawete ne moom neexut a gis yàlla may ko xam-xam boo xam ne nag fàggu mayewu ko day soob yàlla rek mu may ko jaamam ba ko soob waaye du xam-xam bu ñuy fàggu wala jëfun ñeel na ko kanam tal yoxun guddi aji tàlli ñun xufaati ñeel way xaaraan ña wa naa ilun akuk may wa hasmun akuk dogu la zab ko du deng deng hal yaay jëm ci kawe ga sëñ bi yalla ku may kanam gu tàllee talli go xam ñi ñuy ci buñ gis di seen aajo fajuna ñu daal am pasaasa jeex yalla ko defal nak ak dogu go xam du deng deng ko fu tollu mooy gën a yéeg rek dogu ci jëm ci boromam wa sabrun akuk muñ wa suhudun akuk dëddu fi dunaa ci way suufe yi muy àdduna wa futuwatun ak tabeek njàmbaare wa kullu kamaalin ak gépp mat yu rattaboog def na ko toftale lil kiraami ñel way tedd ña di ko yàlla may ci muñ ak li ko yàlla may ci wan gannaaw lépp lu bokkut ak yàlla ak li ko yàlla may ci njàmbaar rek tabe ak li ko yàlla may ci mat mayu ko keneen waliyun waliyu la xaliyun wi aji kawe mursidun kuy aji jubale bu mahabatin ku di boroom wegeel jamilun ku di aji rafet jalilul qadri tey aji màgg daraja xan xaawu kem rabu xan xaawu la bu muy aji dem soowu yàllaa ko def muy ab xejjam boo xam ne ku kawe kawe la kuy wane yoonu yàlla la ku ñépp weg la dara ji ko yàlla jox joxu ko keneen ni ñàkk moroom daa mel ne rabu xanqaaw xanqaaw dañuy wax ne rab la woo xam ne benn nga xam ne amut mbaa amoon na sax waaye jamono jam feeñu woon yonente ba ca nekkoon daa koo ñaan yàlla koo ñaan yàlla